حسين لخيتك وعلى النبي وعليهم أجمعين سلام ربنا جاي أما آه، شاء الله يوم يجرون سمير فران تقوتي لك إمام سامبو نير جمع سيدو حاجي مالي سيمير جنو جمع جي ميلي فيرك لجمسي فيرك ميلي جمسي جمولتي فوسي إمام جمولكر إمام ديري ميلي mi ngi jëm ci jumaay seewul ajumaay kon yow mi defoon mille defaatal ku deful woon defaatal boo ameelu lu ëpp mille defaatal jumaa jàngoo fii dama ñu woon a visite chantier pour ñu xam fan jumaa salaamaaleykum mbokk yi mi ngi noonu su ngeen gisee nag tey ñi ngi ñëw ci liggéey jumaa ji tabaarakallaahu ñi ngi ñaan nag uh, ku ci ne gis na fi liggéey bi toll waaye li ci mën a waay yónnee nga yónnee tabaarakallaahu ñu ñaan nag yàlla yàlla mottali tey jii ñu ngi woon nii pour ñëw nettoyer waaye ñu ngi ñaan tabaarakallaahu lépp lu waay man nga yónnee ci Wave bi yónnee ko Orange ndax liggéey bi nag des na ñu ngi koy sàkk ci mbokki taalibe yi yëpp yëpp yëpp tabaarakallaahu ñu ngi noonu lépp nag ci ndigalu xalifa Serigne Babacar Sy Mansour ñu ñaanal ko yàlla defal ko gudd fan ak wér yi lu waay defal yàlla yàlla fay la ku ci nekk xam na ne liggéey bi li ci des moo gën a métti fi ñu li ci waay mën a def tabaarakallaahu nga def ko te yónnee ko ci Orange Money bi ñun ñëpp gis nañ tabaarakallaahu liggéey bi des na gis ngeen liggéey bi fu mu toll li xam ngeen ne li ci des moo gën a métti fi ñu jógee bu ko defee ñu ngi koy sàkku ñëpp lu ci waay mën a yónnee nga yónnee ko jaarale ko ci Orange Money bi wala Wave bi tabaarakallaahu buñ ko defee rek incha allahu rabbi li ñuy mébét yëpp ci liggéey bi yàlla dina ko mottali mbokk yi mi ngi noonu gis ngeen liggéey bi fi mu toll tabaarakallaahu ñëw nañ di nettoyé waaye nag teewul ñi ngi sàkk ci mbokku taalib fooy mën a nekk nga yónnee waat yónnee waat yónnee waat ndax nag liggéey bi di ci des bari na torop torop torop torop tabaarakallaahu mi ngi noonu mbokk yi ñu ñaanal nag sëñ Babacar Sy si yàlla na ko yàlla defal gudd fan defal ko wéer ñi ñaan nag na ñëpp jëndaat ci pins yi ku jëndoon ci pins yi na jëndaat ku jëndaat na nga jëndaat tabaarakallaahu ñu ñaanal na khalifa bi yalla yalla defal ko wër and ko ñun julli ci ay ati at bi jahi sayyidina muhammad sallallahu Alaihi Wasallam. mi ngi nonu gis ngeen liggéey bi tabarakallah bu ko defé rek nañu dugolat nañu dugol mbokki jullit mbokki talibi assalamu alaykum warahmatullahi taala wabarakatuh ñi ngi leen di nuyu bu baax di leen ziyara di leen ñaanal jamm di sakku ñaan ci yéen baax baax waaye di jiital di nuyoo bi alxalifa sëriñ Babacar Sy Mansour xalifa général des Tidiane yàlla na yàlla dolli ko gudd fan dolli ko may dolli ko wér-gu-yaram euh, ba euh, liggéey bi nga xam ne naal na ko ngir liggéeyal ko maamam yàlla suñu borom defal ko fekke ak tal ba nu inauguré li nga xam ni moo di grande mosquée bu Tivaouane bi nga xam ni fa tabaarakallaa liggéey bi sori na lool macha allah comme ni ko euh, sa Souleymane ba waxe ñi defoon nan defaat ñi defagul nan def te xam ne liñ def incha allah dinañ gis njëriñ ak résultat yi mboolem lu ci waaye def yàlla na ko def sa téere jëf ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi ngi noonu slogan bi nga xam ni waa grande bu Tivaouane muy euh, ñi nga xam ñoom ñoo yore liggéey boobu slogan bi nga xam ni euh, génn nañ ko muy waajal ubbite gi ngeen gis noonu euh, logo bu nu def rek da ngeen di gis ñu def ca li nga xam ni moo di waajal ubbite gi kon jàpp naa ne lii dafay wane ne maanaam liggéey bi am na fu mu toll ban ba nu ba nu waajal li nga xam ni moo di ubbite gi ubbite jumaa ji yàlla nañ ko fekke ñun ñëpp ak sunu xalifa bi ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye tamit euh, euh, dox mbokk bi nga xam ni ñoom euh, ini kii tamit initié nañ ko muy dox mbokk collecte mosquée Castor fa tabarakallah total bi mi ngi toll ci 4 millions de francs CFA waa Castor ñoom it yaakaar naa ni jëf ji rëy na lool waaw waaye waa dox mbokk Rufisque tamit ñoom it gis ngeen montant bi nga xam ne ñoom it euh, nañ ko fa tabarakallah muy lu ama am solo daal yàlla na yàlla fay ñëpp yu waaye tamit jagbot bu mag bi nga xam ne kenn fàtteegu ko ba léegi muy jëf ju rëy ji nga xam ni imaam Alioune Moussa Samb def na ko ginnaaw bu mu wootee woon fële ca euh, grande mosquée bu Dakar fa tabarakallah moom mu dajale somb toll ci 37 millions 150 mille francs CFA ci sunu xaalis waaye ngeen gis nag fan yëpp ñi nekkoon ci li nga xam ni moo di nettoyage euh, deuxième nettoyage grande mosquée bu Tivaouane fa tabarakallah ngeen gis mbokki taalibe yëpp euh, ñu bëree bëri teewoon fa euh, ngir taxaw li nga xam ni moo di liggéey boobu yàlla yàlla fay ñëpp yiw muy lu ama am solo waaye tamit mbokki taalibe yi mbégte la ci teewe ndaje moomu fa tabarakallah ci ñëpp waaw ñuy waajal nag li nga xam ni moo di gàmmu ndar gàmmu ndar nag dafa am borom gàmmu Tiwaawan buñ ko waxee ñu ni guddi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam eh, bu ne yeneen i gàmm gàmm yu nekk ak ko leen ko waaye gàmmu ndar dafa am borom eh, borom ndar nag comme ni ko Samb bu waxee woon rek fa tabarakallah mi ngi noonu. xalifa Babacar Si jërëjëf Sambou yaakaar naa ni lii am na ñoo xam ni biñ ko doon dégg defoon nañ ko challenge muy lu am am solo way na ni xat kuntu min ahrin dari wa maskani bi alata fa tabarakallah muy lu am am solo euh, Sambou nag bayit bi sëriñ Babacar Sy radiyallahu taala anhu moom moo ko bindoon waaye Sambou def ci defaat rôle fa tabaarakallaa ginnaaw bi nga xam ni woy na ko ci biir koor gi yëngal ñu bëree bëree bëri ba tax ñu di ko challenge fu nekk euh, kon Samb dafa dundalaat bay di euh, ci weeru koor wi nga xam ni moom la nu génn ginnaaw bi mu ko yëkkatee euh, bégloo mboolem fu taalibe nekk fa tabaarakallaa kon Samb ñu ngi koy ñaanal yàlla yàlla guddal fanam dolli ko wér bu baax a baax a baax ndiki noonu sax yéen a doon gis fan yi yëkkati woon na ko Eh, gamu pare bi nga xamni mo fa doon am tabarakallah sambu fum dem rek toj fa yalla yalla sam ko bu baakha baakha baax kon nak gàmmu ndar dafa am borom muy Serigne babakar si radiyallahu taala anhu kon nak ndako ko mbokki taalibe yëpp waajal ñun ñu waajal ko ñu dem ndar eh, fele ci Saint-Louis gamu ji fa tabarakallah wuy borom bone kare ba muy Serigne Babacar Sy radiyallahu taala anhu moom mooy borom gàmm ndar comme ni ko al amin waxee woon waaw ndar moom dafa am borom muy gàmm Serigne Babacar Sy kon nag yàlla yàlla fayal ñu sunu góor googu Serigne Babacar Sy yàlla yàlla yokk leeram incha allah convois yeeg waxtaan yi avant gàmm avant avant avant première yi incha allah ñu ngi leen di préparer yu ama am solo fii ci Tivaouane 24 TV. inshallah allah waxtaan bu njëkk bala yag dara di ngeen ko am ñuy eh, wax farci si wax seeni waxtaanee incha allah kan moy Serigne Babacar si tabarakallah jombul premier numéro bi fi ak fan yu ñew di ngeen ko am fi ci 24 TV inshallah naka don ti programme bi fas nañ ci yene and ak yéen kon motax ñu di leen soññewaat baax bax ngeen wéy di abonné wat fi ci 24 TV ngir soutenir li nga xamni modi moo scène eh, bi. fa tabaarakallaa waaye tamit ñuy ñuy ñuy tëjee rek di ko fàttaliwaat suñu bopp di leen ko fàttali muy liggéey bu Grande Mosquée bu bii nga xam ne liggéey ba ma ngay sori lool fa tabaarakallaa liggéey ba avancé na yàlla na yàlla defal ñu ñëpp ñu fekke immigration bi ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi ziaraat ñëpp di baal ñëpp àq waaye di baalu ñëpp àq yàlla na yàlla boole ñu defal ñu jàmm defal ñu sutura sàmmal ñu sunu xalifa bi ak mboolem euh, xalifa seen roo yi nga xam ne ñoo nekk ci biir réew mi ñi ngi ziaraat ñépp euh, jërë ngeen jëf maa ngi ñaaxaan mbokk taalibe yëpp seen ko na ko ku jëf ba noppi na ko ku ñëw fi ba gis liggéey bi ñu ko mel xam ne jëf gi mbaa orange money mbaa mbaa ñu dem jënd suñuy piñ takk ku jënd ba pare ñu xarit ku jënd gul na nga macha allah yow mi jëloon sa 1000 francs teg ko ci loxo imam Samb ngir jumaay Seydou Hadji Malick bi say 1000 génnul jumaa ji 1000 fii jëm si fii fii la 1000 yi jëm si jëmul ci poosu jëmul kër imam déedéet 1000 yi mi ngi jëm ci jumaay Seydou Hadji kon yow mi defoon 1000 defaatal ku deful woon defaatal boo amee lu ëpp 1000 defaatal jumaa jaan fii dama ñu woon ak visite chantier pour ñu xam fan la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 suñu loxo yi ca kaw ala nabi wa alayhim ajmaina salaama rabbina